baat boobu te inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne mi ngi sàkku ci képp ku fi na wax ne allahumma ajirna fi musibatina haadihi waxluf lana xayran minha nee jëmu ju tedd jii tëdd di mbokkam di xaritam di soppeem nee ci ndigalal magam ju baax ji papa xalifa alxaaji Amadou Niass di kilifaam di xalifaam ne ci ndigalam lay seedee jëmu ju tedd ji ak ci làmmiñu mbooleem njaboot gu njabootoo ci Maulana Cheikh Alxaaji Amadou Niass ak mbooleem ku njabootoo ci Maulana Cheikh Xalifa Alxaaji Mohamed Niass wala nga njabootoo ci maam alxaaji Abdoulaye Niass. ju neex a seede la. nee jëmma ngi nii ju neex a seede. li mu ko mën a seedee mooy ne. nee li mu ko mën a seedee moo di ne. yàlla dafa ñu am lu ñu sant. yàlla dafa am lu ñu sant ñun jaamam ñi. santaane booba yàlla dimbale ko. nee santaane booba moom yàlla dimbale woon na ko ba mu matal ko. santaane ba mooy yàlla dafa waxoon ne. mu ne santaane ba mooy yàlla dafa waxoon ne. lu mu métti métti métti. leen dee mukk bu leen dee mukk dul ngeen nekk lu dul ngeen nekk di ay jullit. leen sant loolu rek ne li ma leen sant ak lu bari bari loolu rek laa soxla woon ci yéen. julli yeeg oor joxe asaka yëpp. ne julli yeeg oor joxe asaka yëpp. ay wasaayil yi rek loolu ay jokkale yu lay jokkaleeg sa digganteeg yàlla la rek. waaye sama bëgg-bëgg waaye bëgg-bëggam yàlla dëgg ci jaamam. kenn yéen. mooy bu kenn dee ci ñun. lu may dafa nekk di jullit. wala tamutunna. na aaya ja mooy wala tamutunna. mu ne falaa tamuutunna illaa wa antum illaa wa antum muslimun nee na loola yàlla defal na ko jëmm ji tudd tëdd di Cheikh Omar. ci lislaam la dee. nee ci lislaam la dee. nee jullit xaqan la. jullit la boo xam ne. nee jullit la boo xam ne. doon na doon na ko. waaye jàllat ko mat waaye del jàllat bi ko nag mat jullit koo ko sëkk. doon jullit mooy. mu ne doon jullit mooy. fexe ba taxawee ponk yi. fexe ba taxawee ponki lislaam yi. yëpp taxawee na ko ci ne mbooleem ponki lislaam yi moom Serigne Hadi mi ngi seede na Serigne Cheikh Omar mi taxawee na ko. li ko yàlla gàcc yëpp tam mën ko def na ko. ne li ko yàlla gàccoon ci ay ponk tam mën ko yëpp def na ko. loolu la ñu doonee jullit. ne ci loolu nag la ñuy jullit. li muy jafe-jafe nee doon jullit li muy jafe-jafe mat jullit moo ko gën a jafe mat jullit moo a jafe loola gannaaw bi mu doonee du jullit gannaaw bi mu doonee jullit moom ko mat jullit dafa jàllar ko nag mat jullit sët jullit nuñ koy matee nee jullit nuñ ne suñ borom bi wax na ba pare ci gannaaw farata ya ko taxawee ko ci la ñuy matee jullit moom mii moom Serigne Cheikh Omar mii dund na ba génn àdduna néew na néew na quatre heures ba fajar. fekk ko ci lal fekk ko ci kaw lal. lépp ne lépp. jaamu yàlla jaamu yàlla rek. ba xëy ndékki ba xëy ndékki. doo nga fatu doo nga fatu nag. adduna bi li muy bëri bëri. ne àdduna bi li muy bëri bëri. ñetti bagage rek la ci soxla. ñetti bagage la soxla ci adduna bi. des yëpp yi ci des yëpp. bàyyee na ko na ko ñun jamono. ñett lan ñee ñett yee mooy lan. ngir yàlla di ko wéttalee ngir yàlla di ko wéttalee yàlla. nee ndox. mu mu jàppee mu mu di ko di ko di ko jàppee. kaamilu alquran nee kaamil bu muy jàngee. ñetti bagages yi rek nee ñetti bagages yi rek. <coughs> moo doon yitteeb Serigne Cheikh Omar mi tëdd. ci àdduna ci àdduna fii. jullit xaqal la nee jullit xaqal da ngeen di tëdd. a wéer a bu wéer a wéer a wéer a wéer. tijaan xaqal la nee tijaan xaqal la woon. Mawlaay Serif Abdul Mutalib. nee Mawlaay Serif Abdul Mutalib Atijaani. moo ko may tariqa moo ko may tariqa Tijaaniya. defal na ko lijaasa nee defal na ko ijaasa ci loxol boppam. ijaasa boo xam ne ijaasa boo xam ne. ijaasatul itlaq la jàpp la. jël wirde yomb na. jël wirde ne yomb na de. mais pratiquer ko moo jafe. mais pratiquer wirde moo jafe. diirëb bu nekkee Kaolack. diirëb bu nekkee Kaolack moom Cheikh Omar. mi ngi ci wasifa bi. mi ngi ci wasifa bi fii ci ñeseen. du ko tardé du tardé mu ko jumaa ji. diirëb lu mu fi ne. diirëb li mu fiy ne. ma ngi ci xadaratu jumaa mi ngi ci xadaratu jumaa yi. bu nekkee Dakar. bu nekkee Dakar. amul benn benn fan. amul benn fan. bu mu koy fekk ci wér. bu mu koy fekk ci wér. mu tardé wasifa mu tardé wasifa wa. wala ajjuma jot. wala ajjuma jot. mu tardé xadara mu tardé xadara jumaa. kon tijaan xaq ne kon tijaan xaq na ngi nii. mbokk mu naka neex a mbokk. mbokk mu neex a mbokk ngi lu nit lu lu ko jaxaseeg nit rek. lépp lu ko daan jaxaseeg nit. fekk na mat na ko fekk na loolu mat na ko su fekkee dafa jaxasoo yow ci mbokk bu fekkee dafa jaxaseeg yow ci mbokk mbokk leen boole mbokk leen boole da nga fekk Serigne Cheikh Omar mi muy gën ji mbokk di mbokk mu baax bu fekkee xarit leen boole bu dee xarit moo leen boole woon muy xarit bu mat xarit rek buy àndandoor bu dee àndandoo la da nga fekk mu mat da nga fekk mu mat sëkk àndandoo bu dee wóllëre bu dee wóllëre la da nga fekk mu mat da nga fekk mu mat wóllëre ku baax a ngi nii mais ku baax a ngi nii tëdd ku sell a ngi nii ku sell a ngi nii tëdd ku maandoo ngi nii ku maandoo ngi nii tëdd ku ragal yàlla ku ragal yàlla ngi nii tëdd ku juba ngi nii ku juba ngi nii tëdd bëggul lu dul bëggutoon lu may yàlla يالا كسه يونتو يونتي بي رك شيخو تيجان رك مام خليفه مام خليفه رك مي جيخال ناكي تاك ديس ييب لي دي ديس ليب امول امول تي سوخ امول تي وون سوخلا لي نكو ياكارال تي يالا مي لي نكو ياكارال تي يالا يالنا داجيك يالنا داجيك لولا لو اوب لولا يا ربي يالنا داجيك يالنا داجيك لو اوب لولا يالنا داجيك يالنا داجيك لو اوب لولا يا ربي رفان تاي ني مي فيم نارا فنان تاي يالا نكو گنال يالا نكو گنال فوم مسا turandooram teru yàlla na ko turandoom teeru Cheikh Omar Fouti Cheikh Omar Fouti niru na ko ci jikko yu bari mais niru na ko ci jikko yu bari yàlla na ko maam Alaaji Abdoulaye yàlla na ko maam Alaaji Abdoulaye teeru yàlla na ko maam Khalifa yàlla na ko maam Khalifa Niass teeru yàlla na ko Cheikh na Tidiane teeru yàlla na ko Cheikh na Tidiane teeru ñoom ñëpp ñu jël ko teg mais ñoom ñëpp ñu teg ko nag ci loxol Seydina ci loxol Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ci moom yëpp mënuñ ko mais lim xam ci moom yëpp mënu ko wax de da koy tënk nii rek ne da koy tënk nii rek bañ dem gént bañ dem gént ba inshallah waxtu bi xat na ne ndax waxtu bi xat na ma bañ ma bëgg nag mu ne mu bëgg nag moom Sëñ Haadi ne ñëpp ànd ak yar ne ñëpp ànd ak yar yaakaar naa ne néew bi tëdd yaakaar na néew bi tëdd. ñàkk yar. ñàkk yar ak wane ak xir gu ak wane ak xir gu ëpp. nit mën na cee jaare nit mën na cee jaare yàqule yàqule man amu ci sikk sax mais loolu amu ci sikk kon na ñëpp ànd kon na ñëpp ànd ak dal rek su ma sañoon ne bu sañoon ñi nekkee ñi ñi ko féete kanam ñi ko féete kanam ñëpp féete ko dañuy dem ca gannaaw sax nag bu ko defee waaw su ko defee nag bu sëriñ bi jiite bu ko bu taxawee ci julli bu ñu taxawee julli gi ñun ñëpp ñu roy ñun ñëpp ñu roy ci moom kabar ci gannaaw kabar ci gannaaw sëriñ bi li ci des ci ay kaddu ne li ci des ci ay kaddu dañ ko mottali ci gént dañ ko mottali ci gént ba inshallah اللهم اجرنا في مصيبتنا هذه واخلفنا خيرا منها نيلو نيو رك ونيو شيخ عمر مي يا ماي نكو يالا ماي نكو بيسب يونت ني سيري شيخ عمر مي يالا ماي نكو بيسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي سيدنا محمد مو генي ادونا ني ينتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو генي ادونا الله رب لنكو الله رب لنكو رب نيب ديغو نانتي ني نيب ديغو تي لولو ci bi mu génnee àdduna. ne Serigne Cheikh Omar mii bu mu génnee àdduna. àllarba lañ fas yéene rob ko. àllarba ji lañ fas yéene rob ko. mi ngi fàttali nag. ne mi ngi koy fàttali nag. jëmm ju tedd ja. jëmm ju tedd ja. Mawlaa Cheikh El Hadj Ahmad. Mawlaa Cheikh El Hadj Amadou Niass. bu ñu ko jëlee Dakar. keroog ba ñu ko jëlee Dakar. fii lañ ci jaar ak moom. keroog fii la ñu jaar ak moom. kon démb mooy tey. ne kon démb mooy tey. ku niru sa bàyyi wàcc nga. ne ku niru sa bàyyi wàcc nga. Eh, Cheikh Omar mii. Cheikh Omar mii. nit ku baax la. ne nit ku baax la. musu fee lor kenn. musu fee lor kenn. musu fee gaaral kenn. musu fee gaaral kenn. musu fee jëw kenn. musu fee jëw kenn. musu fee wax kenn lu ko naqari. musu fee wax kenn lu ko naqari. borom kersa la. borom kersa la woon. ku maandu la. ku maandu la woon. jullit la. jullit la woon. tijaan la. tijaan la woon. sopp yonent bi sallallahu ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon. Cheikh Ahmed Tidiane ku sopp Cheikh Ahmed Tidiane Chérif la woon. Mame El Hadj Abdoulaye sopp Mame El Hadj Abdoulaye la woon. Mame Khalifa nag. soppe Mame Khalifa nag. Mame Khalifa nag nee ma am Mame Khalifa nag. dafa nekkoon dimbu ba mu njiit laayam. dafa nekkoon dimbu ba mu njiit laayam. dimbu bu ma faree ca kaw. dimbu bu ma faree ca kaw. kon dundam lépp mais kon dundam yëpp maam xalifa ñes la woon moo tax njabootu xalifa a a ne ñi ngi ñaan yàlla yàlla jégal yàlla yàlla jégal yàlla yàlla yërëm yaa yàlla yërëm ñu jàppale ñu yàlla jàppale ñu barke rasulillah barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mais wax rek mooy mbaax te mbaax moom du passé mbaax mukk te kon wax nañ ne jëmm ji tëdd ku baax la mais ak njullit du passé jullit te mboolem ñi fi wax ñëpp wax nañ ne jullit la ñu ne tiijaan la ñëpp ko wax kon tijaan la ku baax ku baax koo xam ni. ñu bari sax xamuñu ko. ci gone yi. ku noppi. ku kersawu. bëtam du xool kenn. ne bëtam du siggi xool kenn. wala boo ko bëggee xool mu sëgg. wala heure boo ko bëggee xool sax mu sëgg ndeysaan. damaa wax noonu. ne mas na ko wax moom mi ni ma ko ni ma soppee maam xalifa sa baay. yow mii jur sax soppeekoo ko. ne yow mii nga xam ne yi tey yaay njabootam sax soppeekoo ko noonu ndeysaan. ma ree na ko ah sa bopp nga xam. ne mu ree nag ndeysaan na ko ah Cheikh Oumar da ngaa xir rek waaye sa bopp nga xam. kon nag bis bii bi duggoon ci bàmmeel. mu ne yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey moom ca lay ñibbi ci bàmmeel. yàlla na fa fekk baayam ba. yàlla na fa fekk baayam ba. ak maamam ma. Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu ne su ko defee fekk fekk fa Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne tey nee nañu xam ne tey ni mu dëddoo woon adduna ni mu dëddoo woon adduna jëm ci yàlla jëm ci yàlla bu dajeeg yàlla bu dajeeg yàlla